jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar amaan mbégte ak contentement bu rëy tey ñu teew fii Fass seet si ki nga xamante ne mooy Ada Fass fas yéene koo dalal fas yéene waxtaan ak moom ci làmb aussi tamit fas yéene waxtaan ak moom aussi tamit fi dëkk bi toll parce que yaakaar naa ne gis ngeen yëngu-yëngu yi nga xamante bi ni am na si dëkk bi ginnaaw moom yàlla dogal na mbër la te mbooloo day topp si ginnaawam mu sensibiliser ñi nga xam ne mooy xale yi topp si ginnaawam ak leneen loo xamante bi nii nañ ko waxtaane muy làmb ginnaaw retour bi nga xamante bi nii demoon na ko France INSEPS ñu gis vidéo am tamit mu nekk fa di liggéey ba ba léegi nag ba mu ñëwee dafa lëlu kenn mënu koo gis booy sàng nag am na loolu ma woyal ci suuf ci ginnaaw tuuti loolu nag bëgg naa mu jib bu ko defee comme gars yi nee nañ borom dëkk bi dafa génnoon borom dëkk bi ñibbisi na faw ñu léemu jataay bi ana fu ngeen nekk yéen de laay déglu li ma déggoon léegi laa bëgg a déggaat de bisimilah. wẹ́rẹ́ ìyàwó adanyibisi náà cawli bëri woon na xale la am na doole aye ìyàwó adanyibisi náà cawli bëri woon na xale la xale la. xale la am na doole. macha allah maa la lay siyaare bu baax a baax a baax di la bëggee. maa lay delloo ziar ma doon tam maa lay nuyu di la fay. Mhm. di la di la dalal. Mhm. waaw di la nuyu di bu baax a baax. xale yi ni ñu ubbee. mel na ni neex na de. waaye toujours day neex fii moom neex rek lañ xam. Mhm. waaw dëkk jàmm la quoi moo a chaque jour day neex. Mhm. mais aada si loo nekk gëj nañ laa gis de fan yi dangay ñëw rek laqatu sa roq quoi. non laqatu ma sax maa ngi fi maa ngi si jàmm. Mm. ma nekk nekk si jàmm calme au calme. Mm. Mhm. dëkk bi. ah dëkk baa ngi nii. Mm. Uh-huh. noo gisee làmb ji passé dimanche yaa ngi woon stade wala euh, seetaan si woon. waaw maa ngi woon stade toog. ah ñëwoon nga. da ngay ñëw làqatu quoi kenn du la gis quoi. non làqatu ma sax damaa ñëw toog <laughs> fu ma war a toog rek toog si làmb ji. Mhm. Mhm. noo gisee làmb ji. waaw ah, neex na trop neex na trop. Mhm. làmb yu mel ni noonu day mel ni day gëj ci làmb comme ay Ada Fass Tapha Mbeur comme ay Boy Niang Sa Thiès comme Reug Reug Sa Thiès làmb yooyu lan moo tax muy gëj ci làmb bu amee balaa amaat day mat 3 ans 4 ans wala 5 waaw ndaxte mbër ku nekk day nekk sa yoon rek di béy léegi final la ñuy tase rek kenn kenn mooy daan kenn dem kenn toog. Mm-hmm. ok làmb ji yaakaar naa ne ni ko nit ñi séentoo woon amee na noonu am na xeex am na bëree en tant que bërekat lan nga seetlu ci làmb jooju keroog. waaw am na la am na xeex am na bëre ndax ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ te ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ. Mm-hmm. ndax làmb ji mënul woon jeexee lu dul noonu. Mm-hmm. waaw Sa Thiès day attaqué Reug Reug day attaqué. lamb ji jeex na Sa Thiès am na ndam ci kawam lan nga leen di wax sa ñaari mag lañ. waaw sa ñaari mag lañ Sa di ko féliciter di encourager rek nekk champion la yàgg na fi am takkusaan bu nekk. gaa mm-hmm. di jubilé lamb moom noonu la. Mm-hmm. kuy bëri ji moom mm-hmm. ñaara bëre am baa ñàkk. waaw suñu borom lu ma jox rek nga xam ne suñ borom moo la ko jox. macha allah nga jógee sa combat euh, ak Zarko. yàlla dogal nga am soxna ñu laay wax heure ménage Zarko aussi tamit mu jóge ci combat mu mel ni yéen ñaar daal <laughs> am na fu ngeen toppante de <laughs> moom it mu am soxna. Uh-huh. acca ñu la ñu ñu la ciy félicité bu baax a baax depuis boobu ba léegi nag gis nañ say vidéo aada da nga demoon INSEPS ci diggante bi da nga demoon defi visit wala danga demoon pour entraîner ji. non daf ñu visite dañ demoon pour entraîner hmm. waaw am lu tuuti lu tax ñu ñibbisiwaat dañuy delluwaat. waaw daa am la ñuy régler lu suus rek mm-hmm. ate suñu réew moom mm-hmm. ñun amuñu lu dul suñu réew mm-hmm. waaw xalaatuñu génn tamit te suñu réew duñu nekk si jàmm ko waa duñu stable waaw ñun fii lañ dëkk te tàng nekkul si jàmm rek ñu duñ dem fi la ñuy toog mu nekk si jàmm ñu soog a dem nan nga ko dundee Sénégal ak Espagne ak France comme comme génn nga génn boo xamante bi ni nekkoo ci réew mu dem fa nekk fa pendant un mois wala mois et quelque lan nga ko dundee loo fa dund waaw anterne rek xol lu ñu lu nekk suñu ñu mottali ko dugg nañ fa lu bëri nañ xeex jàng nañ boxe jàng nañ lutte gréco-romaine jàng nañ euh, sport yu bëri daal. Mm-hmm. waaw ñu ngi pratique pratique pratiqué nañ ko foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. ok ban coach moo la yoroon foofu. coach moo yoroon foofu bëri nañ xam nga seen tur. ok ngi doon liggéey liggéey bu am solo première jour ba nga njëkkee voyagé wàcc aéroport ba lan nga yëg. <laughs> non yokku ma dara loo xam ne laamu la ñu am te laamu te doomu aadama moom si loo nekk. Hmm. ak métier boo ti doon boo ko gëmee suñu borom da lay jàppale. Hmm. ok lan ngay wax xale yi topp sa ginnaaw parce que yaakaar na ne gis nañ ne fan yi réew mi tàng na trop des fois marché fii des fois politique fii ak yeneen ak yeneen en tant que koo xamante bi nii porteur de voix la mbooloo bu bëree bëri di topp sa ginnaaw boo génnee fii di dem stade pour nga jot taliba rek problème lay doon. yaakaar naa ne xale yu bëree bëri ñu ngi lay seetaan bu ñu jógee fii dañuy dem fële ca Grand Yoff seeti sa confrère di sarko lan ngay wax xale yi nga xam ne ñoo topp sa ginnaaw. waaw kon li ma waxoon rek ñun tey jii du ñu yëkkati lu tax ñu ñëwaat fii. Mm-hmm. lii la quoi. macha allah suñu réew. Mm-hmm. à part suñu réew la ñu am. Mm-hmm. ay wax samay morom. samay mag. samay rak. dootul jaamu jaamu ko gën. waaw nañu woote jàmm fii dëkk tarixa la quoi fii dëkk mm-hmm. lislaam la mm-hmm. ñu xamuñu fitna mm-hmm. ñu jàmm lañ xam te jàmm mooy àdduna jàmm mooy lépp di wax sama moroom yëpp dañ liggéey jàppale suñuy waajur surtout waaw bu ñuy fitnal suñu waajur ndax fitna baaxul amul sens waaw nañ liggéey quoi nañ liggéey jeunes yëpp ku nekk da ut si loo jàpp waaw boo yeewoo suba teel nga mm-hmm. jàpp julli. Mm-hmm. ndékki dem liggéey. macha allah ba wàccee nga toog nekk ak sa gaay mm-hmm. di lancer message sama morom yëpp. dañ dem dóori waar. ñu xaar dara. dañ jug dem fayet ñafe ko. liggéey moo ñu mën a tax. dëkk bi ëllëg mu développé quoi. ne nekkul ay taal na fii daw fii daw fële loolu moom ñun ñun boobu fu ñu dëkk ñun fu ñu dëkk soxla ñu loolu. te loolu dafay am. waaw macha allah fi ñu dëkk loolu dafay am te soxla soxlawuñu ko ñun ñu taal puno. macha allah ñun fii chaque jour dañuy tag teg asiko yi. Mhm. yëngal. jàmm ngeen xam. kese ñun xamuñu lan la dul jàmm. Mhm. waaw boo di liggéey ñu jàngi ñu wàccee boo dañuy toog waxtaan. Mhm. heure tëdd jot ñu dem tëddi. ñu xëyaat def lool fi moom jàmm rek. dañuy wote. macha allah ba tey dinaa la laaj question ñi nga xamante ni chaque jour dañ naan xeex te buñ saa boo wootee xeex sa doom du ca dem. sa papa du ca dem sa soxna du ca dem keneen ak keneen te ñu ngi ci bureau yi sedd yi naan xale yi dem leen xeexi dem leen rayante yéen xale yi tamit jot na ngeen am mat goo xamante bi nii di ngeen utiliser seen xel bu baax a baax. bu baax a baax a baax ndax de xeex bu jotee. Mm. xeex yomb na quoi si làmmiñ mais taxaw jëf bi mooy wax ji <laughs> jëf bi boog jëf bi taxaw. xeex mën a xeex xeex. Ah. mais xeex boobu yaa ngi woote loo xam ne te jii bu nee bët yow nga yaa daw. bu woote yow del woote jàmm rek. Mm. chaque jour di woote jàmm di jàmm jàmm moo gën lépp. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah yaakaar naa ne dañuy yëkkati jataay bi waaye balaa loolu xam nga ñun luñ tëgg nag rax ci përëm da ngaa jóge sa komba ak Zarko dégg naa aada dafa daanu macha allah kase bi yokk ñu jox la ki nga xamante bi ni sa moroom yu bëri bëgg nañ ko aada dóor dóoraat ñeex ñeexaat duma naan café sos sosaat am nga problème da ma ndax xam nga ko la xamoo ah, problème mu <laughs> suñ borom moo yor lépp mu danta mhm. ñun dañoo nekk Baye Fall gëm suñ borom mhm. di wekk lépp suñ loxo suñ borom mhm. so suñ grand la moo njiit ci làmb fuuf ci lépp loo def man bu ma nekkoon xale laayal gaay fii zos lan ma doon wooye moo gën a daw di bàqu bàqu zos <laughs> balaa may kontaan rek gars yi dama ne zos ma daw bàqu bàqu bu maa ngi nekk xale bu ndaw kon dem bay bëreeg moom loolu sama fierté la loolu di sant suñu borom bu baax macha allah kon boog lii kon boog dama kon jeunes yi laay wax quoi hmm. jeunes yi. ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu xam na ne suñu borom. liggéey lu mu mënul may doomu aadama. leneen mënu ko mooy. dañ hmm. liggéey rek gëm luñ gëm. man xale bu ndaw laa. 2017 hmm. laa dugg si làmb yàgguma de. mais dama wane sama bopp. gëm li may def. te yaakaar ma leen lu làmb. ñu nekk sama ginnaaw tamit macha allah. Arafaas bu xewlee ñëppay ñëw. ñëppay bàyyi seen yite ku nekk waaye doomu aadama dañuy jógee fu nekk di ñëw. ñooñ mm-hmm. ñooñ tey jii aw ma seen fay. Mm-hmm. mais ñooñ tey jii leen rek laa andi mën a ñaax. Mm-hmm. loolu ñu nekk si buñ déglu dara nañ liggéey. waaw seen mbër bu amee combat ñu def cinq cent ba mu naaj dem stade mais bu ñu nekk si loo xam ne tey dañuy xeeb seen mbër. day xajam quoi. kon ay taal pono yooyu noonu. tey jii ay taal pono yooyu noonu ñun tey jii ñun bëgguñu ko ñun jeunesse bi tey ku ñuy woo si lool sax ñun mi tey ji mais da ay bëgg a yàq suñu avenir te ñun ay xale lañ dañoo am avenir waaw loolu laay lancé appel quoi hmm. ñu bàyyi ñu bàyyi xel bu baax xam na ne ñun ay xale lañ hmm. te xale moom loo ko wax rek loolu lay def hmm, waaw te ñuy wax lu rafet quoi si jeunes yi surtout waaw loolu ñun loolu la ñuy appel boobu laay lancé mais ay coow yooyu fajul dara te boo yi nekk si booy caabi féete ginnaaw dañoo bëri sa waay. bëri na lool sax. genre yi moo koy indi. Mhm. yow ay eh, histoire tey jii histoire booy bu histoire soo mu yeew du am juróom bu mu duggoo si poosam il faut mu ne uti ko te mhm. xamoo na la koy uti jee. Mhm. tey jii yow balaa coow di am yow utal ko liggéey nga xam ne bu xëyee am dina am si lu mu jàpp. du soxla du soxla alal kenn. macha allah. waaw appel boobu rek laay lancé quoi. cee grand ba ca parcelle ba tey waxoo ci de. non daa bref rek daw. <laughs> so sama grand la. <laughs> daan booy ñaar daan guy gi ñaari yoon. Uh-huh. daan Issa Pouye ah, ñaari yoon. lamb la rek Issa bi <laughs> lamb lamb lamb joo jotagul. Uh-huh. bu jotee incha allah. Uh-huh. jël yu gën a rafet samay sama samay jël. jël bi si lay bokk. mën nañ ko xaar incha allah rabbi mu rafet. ok man bàyyi la nga tàggoo. kontaan naa waaw maa ngi maa ngi leen di remercier bu baax a baax di ne bu ma ñëwee ba léegi maa ngi soog def interview. Mm-hmm. maa ngi remercier ñëpp. Mm-hmm. di wax Sénégal ah. Mm-hmm. dëkku jàmm la. Mm-hmm. ñun jàmm lañ xam. kese amul leneen. waaw di wax tamit jeunes yi. nañ jàpp si rek nañ si jàpp nañ liggéey. waaw bu ñu xaar kenn si dara. waaw loolu kese laay lancé appel quoi. di bëggee sama gaa yi tamit quoi te. dama bëgg ñoom ñu wax ñu sànni si kàddu. ndax ñoom tamit ñooy. ñoom su nañ bokk quoi. waaw ñoom su nañ bokk. délégué kenn eh, Zarko ñu ngi ñëw de Zarko. Eh, waaw sama Zarko sama ko ah, Zarko sama papa la père. père gaa ngi ñëw grand yo fa. xaaral gaa ñu ngi ñëw léegi léegi. nee na boo nekkee roi des de. <laughs> dégg nga wax bi. aja kan la ñuy délégué. grand mën ngaa toog noonu bu la neexee toog <clears throat> ngi lay siyaare bu baax a baax. la ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm si visite bi. Mm-hmm. di leen remercier si teewaay bi fii. Mm-hmm. baax alhamdulilah. ngeen mm-hmm. tey sa mbër lañ seet si mbooloo bu bëri di ko topp buy dem stade mu nekk porteur de voix wara a sensibiliser xale yi nga xamante ne ni dañuy topp si ginnaawam parce que yaakaar naa ne lu dul jàmm jàmm ko gën a seet boobu nan nga ko gisee bu la neexee sax mën ngaa ñëw ñëwal ñëwal ñëwal. Hmm. ayca euh, kon ñu ngi ak Ibrahima tey sa mbër lañ seet si yaakaar naa ne buy génn di dem stade pour mu jot tali ba sax problème lay doon ndax mbooloo bu bëri macha allah yàlla na ko jig muy porteur de voix bu waxee nit ñëpp dégg ko tey ñu ñëw def visite ci moom pour mu sensibiliser mbooloo bi nga xamante bi nii ñoo topp si ginnaawam nan nga ko gisee. waaw loolu sant yàlla parce que booy xool ñëpp li lañuy rêvé quoi dem ba toll foo xam ne seen réew seen gox dañ leen di amal njëriñ ba bu ñu waxee ñëpp dañuy déglu di leen bàyyi xel di wax ni alhamdulilah ba si set bi. ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw. waaw alhamdulilah. Mhm. lan ngay wax xale yi parce que yaakaar naa ne ni mu ci amee part tamit yow am nga si part. waaw ñun fii moom kàddu gi fii benn la quoi fii comme ni mu ko waxee léegi nii ñun liggéey la ñu gëm xam nga. Mhm. ñun instant yi nii ku ñëwul di ñu wax si waxu projet. Mhm. di wax waxu di waxoo ñu noo jàppaleen ndaw yi. xam nga génne leen situation. leneen si leneen loo leen di woo. yow loolu noonu yaa si war a jiitu ak sa famille. Mhm. parce que ñun fii tànn nañ leneen lu dul loolu wax dëgg yàlla. Mhm. parce que fii da nga ñëw si dëkku cosaan. Mhm. ñëw si ay dëkku noble. fii waa Fass xam nga. fii boo xool ministre yi amul ba ñu nekk si gouvernement Senghor ba jamono ji amul ku fi jàngewul amul ku fi jaarul. te ñun comme ni ñu koy waxee ñun ay républicain lañu. Mm-hmm. ñun dañuy nangu dogalu état. Mm-hmm. état bu nee lii la lii la. Mm-hmm. bu nee lële la lële la ay marche comme marche yu ñuy interdire ak yu demee noonu. fii moom mun naa la assurer ni que loolu du am fii. waaw parce que du am fii parce que saa waay mi ngi sensibiliser xam nga. waaw ñun moom leneen lañ tal quoi ku ñuy jàppale si ay projet xam nga. ak yeneen ak yeneen quoi. waaw. macha allah ñu ngi lay jaajëfal kon. waaw ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm. waaw ci ci teewaay bi fii. ak yu demee noonu merci beaucoup. macha allah. macha allah mbokk yi naa ne am na solo ñuy jaajëfal ki nga xam ne mooy Ada ci disponibilité bi ak gars yi nga xamante bi yëpp ànd nañoo ñoom di nuyu aussi tamit suñ sëriñ nga xam ne moo ñu indi ci oto muy Sa Touba ñu koy siyaare bu baax a baax a baax di ko jox wàcc waayam mm-hmm. sëñ ah, ñoo koy siyaar bu baax <laughs> suñu sëriñ suñ lépp ñoo koy siyaar bu baax bu baax mm-hmm. taal ba sëriñ Saliou bi macha allah waaw moom moom dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa njaboot dafa boot dafa dafa dafa moom axlu laamu la boot macha allah sa amul frontière fenn loolu moom mhm. ku koy mbër bu ko defee ne yow si yow rek la mhm. nekk yaa ngi nax sa bopp moom moom dafa bëgg a làmb waaw moom <laughs> dañ koy remercier tamit si lool bu baax ndax tey ñun jeunes yi ñun jeune làmb yi mhm. ñun tamit amuñu loolu làmb tey ji làmb mooy suñu lépp làmb moo tax gars yi xam ñu tey ñun day chaque jour ñu tamit su baat bu ñuy wax muy làmb ñu tamit dañ gën a jàppale làmb xam ne dañu làmb lañ am làmb moo tax tey caméra yi du tiim ñu. kon nañ jàppale làmb bu baax jàppale ñun jàppale promoteurs yi. Mhm. sponsors yi. Mhm. yéen ñi nekk si dëkk bi. Mhm. usines yi ñoo leen dugg si làmb ji ngeen jàppale ñu waaw ngeen jàppale ñu bu baax président ah, message boobu maa la koy na na usines yi ñëw dugg si làmb ji jàppale ñun mbër yi ñun ay jeunes lañ te si dëkk bi lañ dëkk ay citoyen lañ. tey dëkk yi gis nga lii moo tax ñu jug. pour xeex suñu réew. kon na sponsor yi ñëw jàppale làmb ji. macha la demee. a comme ci grand bi ci parcelle nga naa may affaire sponsor yi. waaw loolu sant yàlla la parce que parce que nu mu demee bay bëreeg Zos avant loolu sax avant tout dañuy remercier Zos. parce que Zos def na plus de vingt cinq ans de carrière si làmb ñun bu ñu demee tey bay bëreeg Zos loolu sant yàlla la. dañ koy remercier grand bu baax la xam nga. Hmm. tey jii ñi di bëri ay combat royal ñoom daan na leen tey. comprendre nga hmm. kon tey ñun bu ñu demee bay bëreeg Zos. Hmm. lu rëy la su ñun te bés bu ñu fonk la wax dëgg yàlla parce que sos naanaan ku li la ñu ngi koy remercier xam nga